fekk sa mbaay gaañ ñu jël libaane internetu 11 news ñu leen di jaajëfal ñu ngi fii nag si buntu Pikine porterie bi nga xam ne tey jii Euh, dégg ngeen coow li euh, suñu benn confrère également jëloon les devants euh, Didier Lemagne doon wax li nga xam ni ñoom si la ñu bokk comme ni ñu ko waxee donc parce que élévage bi ku nekk ak li nga gëm ku nekk ak li ngay consommer fii nag moom viande de porc moom moom ñoom moom la ñu gëm moom la ñuy maanaam porc la ñuy élever c'est important ñu ñëw fii tey jii en tant que site internet waxtaan ak ñi nga xam ni ñoom ñoo fi nekk Dominique ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi leen di fay waa ñu ngi lay fekk ñu ngi la fekk fii donc euh, gis nañ sa place par rapport aux autres am na une différence euh, tey jii am nga yow terrasse yaa ngi euh, fi nga nekk c'est très prop macha allah lan la pourquoi option bi ce choix. bon déjà c'est une choix justifiée c'est un choix justifié. Mhm. parce que sunu sunu fii ba muy doog mel ni presque comme yi yëpp la woon ah. ay zinc la woon et tout. Mhm. mais dañoo amoon benn problème boo xam ne saa yu musaan taw mhm. day taa. te suñuy yaay ñoo fi nekk ak man déjà sama yaay moo fi nekk. Mhm. donc étant jeune certes jàng nañ ak yéen ba ba ba yegg bu sori mais comme que amuñu liggéey donc ñu ne pourquoi pas ñu dem jàpp ne ñoom lépp lu ñu gañee filu ne. pour mhm. suñuy pour suñu njëriñ la. ñoo fay ñoo fay ñoo fay étudier fay étudier yeeg sans <laughs> sans sans compter ay joxe ndéki autre et autre. Mhm. waaw dépense kër geeg yooyu dem ñu ngi ciy jàppale bu baax a baax. bon ñu chaque nawet day am problème. dañ naan am dañ naan comme par exemple man sama parc bokk fii ni sama parc fii. Mhm. dañ naan am problème chaque euh, nawet. Mhm. parce que minimum daan nañ jënd ñaari camion grava pour def ko fi. Mhm. ut cela xam nañ ak nawet bi ni muy ni muy tawee mbaam dèjà dafa bëgg euh, ndox dafa bëgg humidité. parce que dèjà ñemewul tàngoor. donc fraîcheur boobu day waral ni chaque fois day bëgg di tëdd ci ndox ci poto poto beeg yi noonu. te man sama tànk rigidité bi mu am sama tànk yaay amoo ko noon parce que nit ki gën a jëm mag dangay gën a amul nawet buy bu daan mës a te du fi daanu day ñëw ne la tey damaa glissé daanu fi te mbaam yi ba la xool xam ne ñii dañoo am doole. Mhm. buñ la fëlee fii nii yàlla xam ne li ma la ci man a fekk. Mhm. ñu toogoon xalaat mu ne ko pourquoi pas ñu dër ko benn yoon moo gën. Mhm. mais dañoo xalaatoon ne boo ko naree dër ak zeng rebooru zeng. du du tenir. parce que mbaam yi dañuy bëgg di gratter wu parfois day waxatu ak noonu boo xoolee alentour miir ni mu ñuulee nii loolu moo ko waral. la fekk ñuy gratter wu ci miir ñu ne kon nañ mais avant tout nañ nañ nañ defar façade bi tabax ko en mur. dañuy des ñu dër ko. Mhm. léegi de ce fait ndox bi saa ñu sawee ndox bi day walangaan génn. Mhm. léegi kabi déchets yeeg yooyu noonu yëpp da ngay ñëw rek après le lendemain da ngay ñëw bale comme ni ngeen ko gisee nii da ngay ñëw fekk ma bale ba pare ba nettoyé ko avant ma di jox lekk quoi. voilà yaa ngi wax sànq ni dafa mbaam dafa soxla humidité. Mhm. Euh, nii amul poto poto donc ñoom euh, naka la ñuy euh, maanaam rafraîchir naka ñu def ñoom ba am boobu. waaw en fait parce que déjà. Mhm. comme tey su ma jëlee sama exemple man ci man si nit. Mhm. étant donné que mbaam ñu ngi koy wax omnivore. Mhm. man nit su ma tàngee damay naan ndox. à défaut ma dem ma dem sangu ji. raison pour laquelle presque boo xoolee seen lekkaay dañ ciy bëgg a def ndox bu bëri comme comme ku ñu mën a naan. ut cela defal nañ leen mbaar. parce que presque instant bi nii dafa tombé euh, lever du soleil beeg yooyu noonu. léegi fii ak quelque temps bi nan lay féetee. léegi côté moo tax léegi gis li certes soxla nañ lii nii mais nekkul tout temps tout temps lañuy soxla lañuy soxla kii léeg-léeg da ngay ñëw fekk mbaam mi ci naaj bi ñoom ñoo xam raison bu tax mais n'empêche gis nga boo xoolee parti bi ñu def ko mbaar mm. beneen parti bi ñu bàyyi ko noonu quoi ñu dem ak seen choix quoi bu la neexee ñëw si naaj bi bu la dem si ker gi parfois boo ñëwee maintenant sax fi nga leen fekk voilà ñu ñu mooy li nga mhm. xam ni mooy déguerpissement bi donc dégg nga ko mhm. coow li bare na mhm. euh, yàgg sa sa ñoom yaay ak euh, sa ñoom maam je peux dire yàgg nañ fi euh, de plus de quarante ans yow boo ko en tant que jeune Euh, étant jeune. Mhm. Euh, te te te defe naa ni euh, élevage bi def say def sa lépp moo la dundal. Mhm. ni ko mbër bi ni waxee naan naan man xaalis làmb moo moo moo moo moo ngénte mais yow tey jii bi nga déggee loolu lu mu la def. au fait dama tiit. ci mhm. tànge jàpp na ma jàpp na samay morom yi fi nekk. jàpp na suñu waajur yi fi nekk. parce que fii ñi fi nekk ñëpp luñ fi gagné. lu mu tuuti tuuti tuuti seen kër lañ koy jëmale. Mhm. donc yaakaaru njaboot gi yëpp fi la ne. Mhm. donc xëy un bon jour ñëw ne da ngay déggee pir nit ñi da ngay tiit parce que mhm. déjà bu ne ba président toog ne day créer emploi maanaam ku amul liggéey nga jox ko liggéey léegi boo fekkee ku am liggéey pare nga bëgg a nangu liggéeyam kon kooku loolu la nga nekk def. Euh, créer chômeur xanaa. et voilà. léegi yow pour pour kenn ko xam ne soutien de famille la. nga nga nga yóbbu ko au chômage. donc c'est dire que moom il n'est plus. Mhm. ñu topp ci ginnaawam waxi noppi. Mhm. tey suñu xëyoon tey ñu déggee pur ñu fii liggéeyatu ma sama yaay liggéeyatul. Mhm. ma xëy suba ñu jàpp ma pour banditisme à kila la faute. ah à l'état parce que doo toog sa yaay sa yaay di sonn am amay soxla mënu ko faj. parce que gor góor nga. am na yenn yoo xam ne doo ko nangu sax di toog nii di gis di gis say waajur ñuy souffrir doo ko nangu. du ma nekk nag di di justifier effet banditisme yeeg yooyu noonu. mais quand am na fenn fenn fu ñu toll foo xam ne il faut réfléchir. ñu bàyyi si xel. voilà euh, tey yow joxe nga euh, les devants tey bi ma ñëwee. wax nga ni fii zang la woon poto poto la woon comme mhm. ñeneen ñi ah, la plupart li si ëpp loolu noonu la. Mhm. kon war nañ ko mën a moderniser su la déggee. mën nañ ko moderniser bu baax a baax. parce que mhm. tamit lii dafa nekk coût boo xam ne. c'est exorbitant. sa demande un coût exorbitant. parce que déjà fii suma ma fàttali ko bu baax a baax. le fait que ñu tabax ko nii ba lii nii rek déjà presque sama yaay toog na un an à demi boo xam ne presque elle elle n'a pas travaillé parce que déjà presque fond bi mu jotoon garder yëpp moom la mujjee jël parce que boo bëggee dara tam il faut nga def dara. il faut il faut un sacrifice. Mm. donc elle a décidé de se sacrifier pour presque un an un an et demi. Mm-hmm. jël li mu dencoon yëpp def ko fii nii. Mm-hmm. Mm-hmm. donc léegi yow sama yaay moyen bi mu am. est que ñeneen ñi am nañ ko. c'est ça donc. ñun étant donné que ñun presque aide sax duñ ko dégg donc. Ah. kon kon imaginal tey nga bëgg ne ñii fii nii moderniser leen comment faire. kon yéen euh, élevage bi aide moom euh, déggu la mos leen ko dégg. bo ñun bokkuñu sax ñun déjà ñun est-ce que est-ce que est-ce que man je me demande que est-ce que ñun ministre de l'élevage sax moo ñu yilif ñun. c'est ça que je me demande est-ce que eh ñun ministre de l'élevage déjà moo ñu yilif. yow euh, intellectuel nga soo mënoon est-ce que mënoon nga ma estimer à peu près ñi fi nekk c'est-à-dire parce que man. bi may gis vidéo bi si euh, bi nga xam moom Lemagne moo ko defoon. Mhm. Euh, portion bu mu nekkoon pour man lu tuuti la ah. bi ma mhm. ñëwee dama yéemu. après mhm. xam naa gars yi dañ ko gis image yi. que bi en mais à perte de vue da ngay gis ni suñu ay ay ay mbaar la donc euh, mën nga may simel ñu ñu fi nekk. effectivement parce que fii déjà. parc yi certes numéroté wuñu ko. mais je je je pourrais l'estimer presque aux environs de trois cent parcs et parce que déjà mu ngi déparé ci raay bu fële. absolument

waaw foofu la bëggoon wax léegi yoon tey jii déguerpissement bi waxu leen déet est-ce que bu leen joxoon beneen site et en plus accompagner ko maanaam moderniser ko def ko ba nga xam ni tey jii euh, dina accessible et puis yéen itam di ngeen mën liggéey si si dans très bonnes conditions est-ce que euh, di jël loolu. waaw déguerpissement bi waxuñu si déet ndax. Hmm. ñun fii ñu ne. Hmm. gaa amuñu amuñu amuñu papier buy firndeel ni fii ñu ñoo moom. Mhm. mais dafa nekk tamit loo xam ne yàgg nañ cee dox ay ay ay ay ay ay jéego. Mhm. suñuy njiit mhm. yàgg nañ cee jéem a dox ay jéego bëgg a xam ku moom suuf si. bu fekkee mën nañu ko moom moomal boog ñu batale ñu ko. ñu xam ne lii ñu ñoo ko moomal suñu bopp. mais boobu ba léegi dara sottiwu ci. noonu noonu noonu ba ñuy xëy ñu naan ay benn naar moo moom naar boo xam ne déjà. mais loo gis lu ne. il y mën ñoo ñëw ne lii naar moo ko moom mhm. mais kan mooy naar mhm. au moins il y a il y a une personne <laughs> tey ne benn Abdallah la mhm. benn Youssouf la on on pourrait mais loolu yépp amu ci ñun ba ñu déguerpissement mais nit ki au moins boo ko jëlee fii teg ko fële loolu lañ naan déplace déplacement au moins boo ko bañee yàqal jël yëkkati ko fii teg ko nele mais mënoo ko ne jóge fi waaw du nombre bi ah nombre bi déjà <laughs> ak ak ci lan nga yëngu ah ak ci lan ngay yëngu lii ay mala la tey bu ñu ko jëloon tey tey ñun lii bu ñu ko jëloon yóbbu ko suñu kër suñuy dëkkandoo ñooy njëkk a kaas parce que um yaa ngi nii umpale woo xet gi fi am ñun ñii fi liggéey umpale ñu xet gi fi am mënu mënu bu ñu ko jëloon léegi yóbbu ko suñuy kër ñu ngi fay suñu suñuy waa quartier bi njëkk a kaas donc dëkkandoo dafa fort par souci de ça moo tax ñu jël ko bàyyi ko fii nii mënoon nañ def comme ñi ñenn ñaa ngi yar ay nag seen si biir quartier te pourtant xam nañ nag waruñu ko mën a yar si biir quartier yi ñaata nag ñooy doxantu biir Dakar fii donc lii bu ñu ko jëloon tey bu ko yóbbu suñu kër coow lay andi mhm. ñun ku ñu xam-xam ne nous nous nous exerçons toujours dans la passivité mhm. ñun si ñun si passivité lay dox ñun ñun loolu lañ yàgg a xamee mhm. absolument discipline moom donc voilà kon nag day comme que day daw coow bon on a préféré si mais tamit wax dëgg fa yàlla bu ñëw ba dañuy déggal pur fi moom il était préférable ñu jox ñu site boo xam ne fii nii xam ne ñu war nañ fee mën a ne sans compter moyens yi ñu yi ñuy mën a jàppale ndax ñu mën a redémarrer waa ndax déma redémarrage bu ne. Mhm. xam nañ dafa métti. boo jógee fi bëgg a dem si terrain bu bees. si mhm. jaaykat dafoo étude de marché bi dafoo dara xam nga ni ah, foofu noonu pour nga. pour nga mën ko fa familiariser wu dëgg dëgg dëgg dëgg ba imprégné ñëw si climat bi fa ne. Mhm. ce sera tout un problème. Euh, dégrafissement bi est que jël nañ jox àpp jox nañ leen délai déggoon naa ne ñëwoon nañ sax pour def ko euh, fu ngeen mujjee. waaw xam nga déguerpissement booy ñëw. Mhm. déjà man dama jàpp nii lépp ci ay waxtaan lay bokk. da nga ñëw ni ni ki ah ñun de fii nii lii lañ fi bëggoon def bassin lañ fi bëggoon def parce que ñu déjà ñaari wax moo am. Mhm. ñëw nañ nañu bassin lañ fi war a tabax. Mhm. bassin boo xam ne pour que ndox bi wàcc si raay beek ñoom seen boo xoolee fële suuf fële am na fenn fu def benn genre bassin ndox noonu. ñu ne bassin lañ fa def pour mën a évacuer ndox yi. ñu xëy parce que ñooñ ba ñu waxee affaire bassin bi dañoo ne woon mais ne vous inquiétez pas parce que parc ñuy démolir yëpp dañ leen jox ndàmpaay. Hmm. ñu xëy un bon jour ñu ne ñu borom terrain bi moo soxla léegi terrain donc c' dire que xam borom terrain bi kon bu soxla terrain du du laaj du jox kenn ndàmpaay maanaam da leen lever sur uh-huh. donc moo tax man man sama xalaat bu gàtt du ma waxal ñeneen sama bopp laa xalaat. Hmm. sama xalaat bu gàtt dama jàpp ne il y a sous roche. Hmm. qu' est qui ban lobby moo nekk ci suuf. ça. parce que déjà kii bu nee day joxe ndàmpaay. Hmm. kii xëy tey ne man moom terrain bi. Hmm. donc c'est dire que moom bu ñu la jël terrain kon ndàmpaay moom moo koy mujjee. Hmm. qu'est-ce qui pas dit. loolu loolu voilà loolu loolu loolu lëndëm si soow mi. léegi fan ngeen si toll si coow li. waaw moom wax dëgg fa yàlla li dañuy xool gars yi dañoo un bon jour. wàccee fii trois camions gendarme <laughs> ak ñaari pick-up trois camions gendarme ak ñaari pick-up. man man man xaw ma étudier man xaw ma xaw ma université lañ doon dem ñu def détour fii man je man je ne pas parce que déjà yow bu fekkee fii déjà ay maire ka fi ne maire fi ne mënuñoo yëkkati xeer ba sànni ko à cinq mètres mm-hmm. ñun ko ñu xam si passivité la ñuy xam ñun lépp parce que nañ ko jëfee boo gis nañ ko waxtaanee ko moom moom moo ko bu mm-hmm. buñ ñëwoon toog rek on règle on règle les choses à ñun lii lañ fi bëggoon def mm-hmm. ñu ne leen ah ñu ne bu bu dee li ngeen bëgg defee ñu def nii moo gën ñu jëm a trouver arrangement kii xool lu mu mën a def ki xool lu lu mën a tegg ci ci lu mu mën a mhm. ñu def ko mhm. mais ñëw ne lii la ñuy def point donc maanaam force jaay doole ah ben mais du moment déjà yow yow yow yow yow sa avis bi nga joxe sa déjà sa mhm. ça n'a pas compté parce que ñun li liñ liñ liñ liñ waxante ak ñoom ñoom presque mujjul fenn waxuñu si dara après xëy nañ andi seen gendarme ba pare pour ay ñoo xam ne je ne dirais même pas les femmes mais góor sandiwul xeer góor taxawul ba yor bant wala riposé wala quelque chose du genre dañoo ñëw ñu taxaw seen kanam di leen di leen demander explication wala quelque chose du genre le temps que ñuy ñuy génne mbaam yooyu ñu tiré lacrymogène. kon fi jaxasoo na noonu. mais lacrymogène ak c'est la lay servir lan disperser la foule ban foule moo fi am foule yoo xam ne ay maire la vous pouvez regarder la vidéo mhm. foule yoo xam ne ay maire la des jeunes ñoo fi nekk. Mhm. kenn riposé wu kenn deful dara. Mhm. mais lu fi jar. ay ay ci ay sànni ay lacrymogène ak yii noonu léegi après parce que déjà ñun fii nii. Mhm. su ma jëlee grève université. Mhm. université fii ak ëpp xeer foofu. ak i xeeram. Mhm, fii xeer xeeru raay moo fi nii université ay xeeru brique la ñuy dem jëli fee toj donc loo université mën ñun mën nañ ko. mais ñun yareewu ñu noonu. yareewu ñu noonu te dañoo am ay kilifa suñu kilifa wax ñu dégg. ñun dafa am suñuy topp. te ñooñu ñu ngi seen ginnaaw jiital leen. te nit ki nag doo ko jiital fa di ko faagaagal. ñeneen def leen lii ci loolu la ba keroog leneen am ci. voilà mais gis naa ni ba tey yéen ngi fi euh, nan ngeen waaw ñu ngi fi parce que déjà déguerpissement bi au mm-hmm. début. Mm-hmm. waxuñu woon bi yëpp effectivement quoi. parce que dañoo fii lay déparé mooy boo xool sept murs bu zone bi nii. Ah, jëm na le ba Tëliba. d'accord mais ah, déjà à première vue sax si wuloon sax fii parce que commencement fii lay doon taal rek la ñuy wax lay def bassin. Mm-hmm. ñu xalaat un bon jour. donc c'est dire que ñu nekk fii nii. ñu nekk côté bi bokkuñu. bokkaguñu si mais bokkaguñ si waaw looloo gën a wóor merci. bokkaguñ si parce que déjà ñoom seen changement d'humeur yàlla xam nu muy demee mën nañ xëy un bon jour ne nii léegi na ñëpp jóg. donc dañ leen bëggoon zullu quoi. voilà mais à tout moment mën na leen mën leen wat. dégg nga la la nag de day commencé côté bi nii mais da ngay xëy rek ñu dóor la ndel de bu bi di daw sa bopp bi sa doo ko xam. voilà donc euh, tey jii ñu ngi lay si euh, le fait que nga nangu euh, waxtaan ak ñun. Euh, c'est bien que tamit nga ñu tombe si yow parce que jeune nga te xam nga euh, comment ça se passe euh, bu ñu ñëwee si port yi mhm. naa yu ndaw a mhm. gis naa tey mii nga yor mhm. macha allah dafa am différence si race waa différence nag am na ci race bu baax a baax. Hmm, waa différence su moom da koy da nga am na yenn mbaam yoo xam ne. Mhm. presque day mel comme si ñoom dañoo problème croissance boo xoolee. ñooy gën a ndaw quoi. ñooy gën a ndaw ñoom dañuy am problème développé léegi da nga ñëw benn fekk benn mbaam boo xam ne mooy gën day day njool. Mhm. day njool am gabari nga fekk mbaam boo xam nag mën na bañ a njool mais day large quoi day large mhm. nga ñëw fekk mbaam moom day gudd mhm. presque day boo xoolee comme presque ok na yoo xam voilà euh, ndax yi am appellation race waaw certes am am na appellation nag. Ah. mais déjà duma bëgg a. Euh, aventurer ci loo xam ne maîtriser wu ma ko baax a baax. wax dëgg fa yàlla moo tax. d' accord d' accord ok léegi nag euh, mais quand même euh, bi ça se passe bien. bon ñu ngi sant yàlla. Mhm. ñu ngi sant yàlla du moment wu am nañ suñuy nit. Mhm. mais certes njaay bi dafa dafa jafe. Mhm. presque boo xoolee fii Dakar mën naa ne. bu weesoo Bignona fan ngay amee yàpp mbaam. j'en doute. amu leen marché. amuñu marché. certes gars yi ñu ngi ne keroog maa ngi maa ngi benn benn chaîne télé. Mhm. pour ne pas def publicité beeg yéen noonu. Mhm. maa ngi benn chaîne télé ñu doon wax suñu problème bi nii. Mhm. femme bi nañu pourquoi pas yéen du ngeen dem ci marché di jaay foofu. boo fa demoon duñ la xajal. du ngeen fa am place. duñ la fa xajal nga ñëw fii nii nii da ngay da ngay jaay lii nii duñ la fa xajal. tey man mi tey su ma jëloon décision sur que su ma jëloon décision tey ne damay ubbi benn place dafa jaay yàpp en moins de cinq je la visite service d'hygiène mhm. day ñëw ne jàq taxaw sa kanam ne li ngay jaay ni kii gii fii ñaata place ñaata place gis si si si si si mhm. nga xëy nga xëy gis ku ñëw ubbi benn place am karole ko rouge blanc bind la ci boucherie ñaata mhm. waxtu ma laa kulal table am amul benn contrôle pourquoi bu nekke ñun ñu bëgg ñoo contrôler fii nii samedi mooy jot wala léeg-léeg bi ni bi jot kenn ku génnee mbaam rey Mm-hmm. su paree tey yow sama client nga kenn sama client la yow mu nga nekkee Sicap kii nekkee Grand man yéen ñëpp ma ma di wër seen kër yi di leen livreel noonu lay demee. loolu jafe na loolu eh, jafe na eh, eh, voilà voilà xam nga loolu dafa métti déjà boo bëggee tey jël yàbbi fii. Mm-hmm. di wër ak moom fu nekk nga bugg fa dem def livraison def livraison. Mm-hmm. mais comme nii parce que ku dëkk benn mbaaw. bu bu naree jógee mbaaw. parce que déjà yàpp question d'envie la mën nga jégee toog nii am benn kilo yàpp. lakk ak yooyu noonu. tey boo bëggee jógee mbaaw naan da dem paas ba Grand Yoff. pour jël benn kilo benn kilo yàpp ñëwaat ce trop dur. da naan sax duma ko. waaw da ko. da nga naan jaru ko mais lenn xamal. Hmm. tey lii nii bu fekkoon tey nii ay yàpp xar yàpp nag accessible. Hmm. yàpp mbaam noonu accessi noonu accessible woon. Hmm. borom xar yi dama leen yërëm. voilà donc euh, ñu bàyyi la rek euh, lan mooy euh, appel bi ngay lancé déjà autorité ñu ngi setaan seetaan donc tamit addu ñu ngi lay seetaan appel ngay lancé. bon sama appel bi may lancé leen la mooy autorité yi nañ ñu gëstu mbaam gàtt na loolu mais si jur bi la bokk mbaam gàtt na loolu mais si jur gi la bokk bu ñu demee ba ne ministre élevage élevage dañ wax bépp mala bu ñuy yar rek ci élevage nga bokk ñii di yar xar moo xam ñii di yar nag waxtu ma la ñun ñii di yar mbaam mhm. donc yow bu ñëw léegi nangoo lakk doom dóor doom mënoo ñëw ne ñi yëpp maa leen yilif mais ñii laay teral ñii du ma leen teral boo ko defee rek da ngay jéng te ku te njiit warut a jeng bu jéngee rek baaxul mhm. donc ñu ngi ñaan autorité mu gëstuñu bu baax waxtu ma la ak suñu problème bi nga xam ne moom lañu am mhm. ah, te wax dëgg fa yàlla moom soxla nañu wallu lool lool lool lool lool mhm. parce que suñu yaayeeg ñëpp si liggéey bi lañ lañ yaakaar waaw kon nag euh, ñu ngi lay jaajëfal. maa ngi leen di jaajëfal yéen tamit ñu bàyyi la nga continuer liggéey bi. waaw ah, d'accord merci. ok jaajëf maa baax a baax. voilà ñu ngi fii ak euh, kenn suñu yaay ma maman Kati moom dafa bokk si ñi nga xam jotoon nañ leen laal parce que moom mi ngi woon fële si canal bi maanaam si euh, début bi fa ñu fa ñu jëgër piir ba ñëw na côté bi gis nga mu ngi waaj a sëkk yooyu yëpp yaay booy ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu. tey jii fële nga nekkoon. ñu euh, fexe nañ ba jëlee leen foofu. Oh, euh, mën nga ñëwaat tuuti rek si ni histoire bi demee ak kañ ngeen nekk fii ndax yàgg na. Ah, yàgg na de. Mhm. ëpp na ñeenti fukki at bu ma nekk foofu. Mhm. waaw mhm. léegi ñu ñëw foofu la ñuy yaakaar. foofu la ñuy liggéey. mooy suñu doole bi. foofu la ñuy def yëpp ñu fay suñu xale école. ñu jox lu ñu bugg ñu jox leen ko. ñu bugg ñu toog noonu rek. ñu njaaku de ñu bugg a liggéey. di di di daanal suñu suñu doole bi. Mhm. boobu euh, mooy suñu problème bi. mooy seen problème euh, ndax waxoon nañ leen da ngeen di jóge foofu est-ce que waxoon nañ leen ko bu yàgg wala dañ leen bet dañ leen bet de. Hmm. waaw hmm. dañuy jékki-jékki rek ñu ñëw. Hmm. waaw te fii yàgg nañu fii de. du bës tey la ñuy nekk fii. waaw. Euh, yéen euh, d' accord naa ni wala nangu ngeen ni bañu leen fi jógee waaye bu leen fi jëlee tam ñu yóbbu leen si beneen sit waa mais fii la ñuy yaakaar bu ñu jógee fii fan la ñuy nekk. Mm-hmm. Mm-hmm. amuñu place mm-hmm. waaw. foofu la ñuy yaakaar. waaw ndax euh, tey jii ministre bi nga xam mooy yore wàllum élevage wàllum njur gi ndax mos ngeen ko jis ndax mos fi ñëw ndax mi ngi leen di jàppale. a ah, am na ñuy dem dem foofu reñu de. Hmm. man musuma dem reñu mais am na ñuy dem reñu hmm. foofu. mais moom musul ñëw ba fii. mun na ñëw ba fii de musul ñëw. musul ñëw fii hmm. Euh, naka nga dundee bés boobu bi leen di yàq seen yàq seen fi ngeen nekkoon noo ko dundee. a ah, bés boobu. neloo ma de. neloo ma añu ma reeru ma. non laa nekk. waaw. Uh-huh. fexe nga ba amaat benn place fii si si si biir nii. Euh, yomboon na wala jafe na. ah am naa fii benn place mais yàgg na bu ma amee place fii. parce hmm. que du am sonn rek. lan ngay wax ñi lay seetaan wala autorités yi loo ban loo leen loo leen leen di laaj wala loo leen di ñaan. ah dañuy ñaan rek pour hmm. ñu baay ñu ñu nekk foofu ñu liggéey foofu. parce hmm. que fii la ñuy yaakaar xamuñu yaakaaruñu fenn. waaw. léegi nag si l'état n'encadre pas mu teg leen ci condition ñii ku ku boole di nga net di nga nettoyé ku xam xam nga ne ñoom bëgguñu ay affaire sale ñoom dañu bëgg ay affaire parce que ci loolu la ñuy liggéey boo demee ci kër yi dañ fay liggéey dañuy fóot dañuy passé dañuy def lépp le seul problème qui existe mooy que état il faut mu jàppale leen il faut mu soutenir leen parce que sinon rek affaire bi les éleveurs de porc xolal doo fi dugg nga ne lii c'est sale franchement doo fi dugg nga wax ko parce que il nettoie mais le seul problème léegi lii bu amoon canalisation kon du sonn il aura tout c'est ça mais les éleveurs de pôle il faut que gars yi gars yi teg leen ci condition comme ni ñu tegee ñeneen gars yi il faut pas les laisser comme ça nii rek di leen wax